sëriñ bi ñoo ngi yëkkati kàddu nuyoo yooyu di ko boole nuyoo mboolem kilifa yi ñu àndal ci délégation bi ak ñi nga xam ni ñi jotuñoo ñëw di ko booleeg suñu ziyaar di ko booleeg di yeesal di fedd li suñu taalibe di la ko jébbal Mbàkke tànki tey yi nag ci benn baat rekk la tënku muy cant di sant suñu boroom bu baax a baax a baax di julli ci yonentam bi Muhammad aleyhi wassalaam di sant Sëriñ Tuubaa cant bu wér di la sant Mbàkke yow mi fi Sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf di sant mbokki taalibe yeeg mbokki jullit yépp di sant population Sénégal yépp di yeesal di fedd li ne fi nga ñu tegoon rekk fi la ñu nekk ba tey te mooy tënku ci njàngaleem sëriñ bi ak lu ñuy mën di sàkku ci àddina ci loolu lañuy ñuy tënku yaa rabbi in ataytani fa shukru wa in manata faridan wa sablu di feeñal suñu mbégte bu baax a baax ci lépp lu suñu boroom dogal te amuñu benn sikki sàkk amuñu benn werante ci ne lii ñu jóge ndam lu rëy rëy lañu ci defal ñu fekke ko tal ko tàbbi ci ci jàmm génn ci ci jàmm di sant cant gu wér cant gu am foo xam ni am na fu mu tàmbalee wante amul fumu mu yem te ni ko xol bi yége baat yi lott nañu ci génne ko di gën a yeesal di gën a fedd li suñu laxasaay ci biir tool bi te mooy liggéeyal bu baax a baax a baax askanu Sénégal ci wut jàmm ci dàq lor ci ñoddi njariñ fu ñu ko mën di fekk ci loolu ci lañu tënku ci lañu taxaw ñu nag kilifa yi nga xam ni ñoom lañu àndal yépp di la ko seedeel si Mbàkke loolu moo doon tànk yi ñu ne xat na jàmp na wante bala ñoo jublu ci lu mu mënti doon dinañu egsi ba ci sa kanam yeesal cant googu yeesal cant gi itam ci kanamu mbokk yépp ñoo ngi lay sant bu baax a baax Mbàkke di la gërëm jërëjëf